yi nga xam ne ñoom ñoo fa war a nekk mais fu ñu changé gul l'état c'est la continuité dañu kon ne liggéey am na ay direction yoo xamee ni soppeeku guñu changé guñu ko ñi fa mais ñu ngi kon ne liggéey te l'administration c'est pas seulement le ministre euh, ou le directeur général d'une société mais il y a des techniciens il y fonctionnaires yoo xamee ni ñoom ministre bu ñëw fa nga leen di bàyyi peut-être bu changé di am ñaar ñett la ci changer ñu ñu ñuy staffam bi ko a jege mais ñeneen ñëpp dañuy continuer seen liggéey donc euh, si parce que je vois des journaux am na je pense benn journal euh, bu fekkee ni euh, Ablaye naa mën na ma si jàppale euh, buy wax ci primature ni amagul lan bon euh, retard dans la nomination des cabinets ministériels je pense enquête moo koy moom moo ko bind ñu ne lan. plus d'un mois après la mise sur pied d'un nouveau gouvernement. C'est le statu quo dans la plupart des ministères. Le cabinet du, politique du président quasi absent, des bureaux vidés à la primature. Euh, primature boobu ma jël benn benn exemple boobu su ma nekkoon premier ministre ak euh, secrétaire général am wala ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir cabinet am dina dama le mbirum pointage yooyu ñu doon wax primature lan moo tax mu war a vidéo parce que am na ñu fa nekk ñoo xamee ni peut-être dañ jàpp ni léegi ñu jëlee ñu fi nañ toog jàpp suñu suñu njàmbur war ñoo liggéey su ma nekkoon premier ministre Ousmane Sonko ñi nekk ci biir primature dama leen di taaj ne leen lan moo tax liggéeyu leen bu ñu nee la primature est si c'est avéré si c'est avéré mais ña ña ña ña nekkul seen seen service ca heure bu ñu ko war a nekk ñooñ dañ leen war a sanctionner xamul tax c'est pas une question de non premier ministre bu bees am na. président bu bees am na ñun nañ toog jàpp suñu ñàmbur parce que peut-être ci gouvernement bële la ñu dugaloon wala ci régime bële ci la ñu tàmbalee liggéey wala ci la ñu jox liggéey fu ñu nekk ci primature l'état c'est la continuité. ah. bu liggéeyul li mais mais waruñu fayeeku. Ah. ku liggéeyul. Ah. weer bu deewee. waroo fayeeku ah bul dem sa bul dem tàllal loxo naan fay leen ma. luñ lay fay. salaire pour lan la. liggéey. boo liggéeyu lu ñu lay fayee. je di si cette affaire si cette affaire est avérée bu dee dëgg la lii enquête bind. te man jàpp naa ni muy primature muy ministère économie muy ministère bu mën a doon euh, bopp bi la changé. que ñëw ci bopp bi am na ñaar wala ñett ñu mu indaale wala ñu mu le parce que dénkaane ko wóolu ne leen kaay leen jàppale ma ci nangam mais ñi si des ñëpp ay fonctionnaire lañ dañ war a liggéey waruñu xaar ñu ne leen liggéey leen aujourd'hui maa ngi koy wax direction yi nga xamee ni changé guñu seen seen i euh, ñi nekk ci bopp bi am nay direction yoo xam ne mën na am sax changement mën na cee bañ am parce que ce sont pas des hommes politiques ou des femmes politiques yu fa nekk mais yooyu les direction mais ñu ngi ko ne seen liggéey nekk di xaar dara sànq jàllale nañ fi benn publicité bu Sénélec y' a de amaguñu directeur général bu bees Sénélec mais ñu ngi seen liggéey. mooy yoon dañuy continuer seen liggéey. c' est parce que y' a eu un changement. que tout s'arrête l' état c' est la continuité. continuité je le répète. Mm-hmm. l' état est la continuité. ku ñëw am na lu fi nekk. Mm-hmm. ña fa nekk dañuy continuer seen liggéey c' est valable ci mbirum euh, nomination yi ñuy wax. Mm-hmm. mais nomination yi c'est que Sénégal dañoo bëgg coow fu coow amul wala coow ci loo xamee ni warul am coow coow nañ fii naan non jigéen ñi bariwuñu ci gouvernement bi gisuñu leen ci gouvernement bi mais tey jël nañu pour la première fois mhm. Mhm. directeur de cabinet adjoint mhm. bu présidence de la république def ko jigéen mais xoolal son parcours ou son cursus da nga naan mais euh, c'est mérité na ko wala. am na am na ci euh, maanaam euh, bu dee fi mu jaar yëpp ci jàng ci liggéey. mën na ko mëtale mët na ko. ah tey léegi léegi comme yenn féministes yi j'adore les femmes mais féministes yi ah nañu wax. ne ne ah au moins tegal nañu koo xamee ni macha allah. fañ ko teg tamit. ah du ñëpp fa ne. ñu ne la pour la première fois. Mm-hmm. bu ñu sancee Sénégal ba léegi. Mm-hmm. ñu teg ko euh, directrice de cabinet adjointe. adjointe. ah dara na. Mm-hmm. donc gis nga parler pour parler. Euh, yaa ngi koy wax sànq ak Babacar opposition looy opposé wu ci un mois. ci un mois. xanaa boo amee contrat sax ngay dugg ci entreprise ñu jox la contrat à durée indéterminée dañ la naan. day am période de probation lu mu néew néew c'est trois mois. balaa nga xanaa balaa nga may ndaxte kay. Mhm. dégg ma may mu matal au moins ñetti weer. Mhm. ya on peut pas faire un bilan actuellement. Mhm. qui va bilan sur quoi. un bilan sur quoi parce que ñi fi nekk nii tey am na loo xam ne ñu ngi poursuivre ci. Euh, régime passé wala programme passé la preuve ba ñu demee FMI def leen ne mhm. am na loo xamee ne ci biir PSE mhm. faw ngeen continuer ko tey xaalis bi nekk ci biir réewum Sénégal du Bassirou Diomaye Faye moo ñëw rek tak ñëw indaale ay valise u xaalis no mhm. dafa ñëw fekkoon fi xaalis boo xamee ni diggoon nañ ko Sénégal par exemple ci avant ñu ñëw indi ko dugal ko ci biir peut-être mu tombeek période ci tàmbali tey bor amel nañu ay nit ay bor detu Sénégal mais bor bi amoon ci Macky dafa ñëw fekk bor bu nekkoon ci Ablaye Wade mu am loo xamee ni jot na ko ci fay am loo xamee ni jotu ko fay am loo xamee ni mu nga doon continuer tey bor bu mu ñu bàyyil moom Macky Sall Bassirou Diomaye Faye day day day obligé di continuer ci bor boobu di xool nu mu koy fayee mhm. secteur par secteur dette publique bi mhm. bari na ay milliards la dette intérieure bi. ay milliards la am na dette boo xamee ni ñu ngi ko ameel bitim réew faw ñu xool nan lañ koy mhm. fay am na yoo xam ba léegi ñun nii suñuy doom ñu ñoo ko ñoo ko nar fay. Mhm. mais euh, vraiment un mois nga bëgg cee natt <laughs> natt ah bon c'est bien de d'alerter wala mhm. d'exister. de vouloir existe aussi nag non war ñu maa fàtte. je pense que voilà le le, le mot nag ils sont en train de. de faire des des des des, des pour exister entre autres. Mhm. c'est normal d'exister ou de vouloir exister. Mhm. parce que euh, dafa am li ñu naan pouvoir. Mhm. il y a l'opposition qui s'oppose le régime qui gouverne il y a peut-être lu ñu woowee contre-pouvoir donte léegi defatuñu sax contre-pouvoir euh, ñenn ñi mais société civile moo gën a yaay ci contre-pouvoir déggoo leen parce que ñoom jàpp ñoom intellectuellement ak professionnellement jàpp nañu ni c'est trop tôt pour dire quoi que ce soit xam nga lan nga mën def fàttali nit ñi yaa ma waxoon bés sàngam nga waxoon bës baa ngi jege si fexeel baral seen normal que nit ñi peut-être di fàttali mais fàttali ku fàtte ñii mënuñoo fàtte ndax li leen fal xam nañ ko mënuñoo xëy rek fàtte li leen fal c'est pas possible Babacar ak euh, yow Birame mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci anticiper sànq par rapport ak Fatou Kiné Diakhaté bi nga xam moom la ñu tab mu nekk directrice cabinet adjointe bu euh, présidence gis nañ bu ñu tegee gouvernement bi rek un gouvernement de vingt cinq ministres yenn si féministes yi di euh, yi nga xam ne rek ñoom la ñu am ñu nekk ay ay jigéen ñu bokk si gouvernement ban lecture nga def ci poste bu yees boobu nga xam jox nañ ko aujourd'hui Fatou Kiné Diakhaté bon comme ni ko mm. Birame waxee tout à l'heure rek mm. c'est mérité quand même mm. j'espère que moom moo nekk derrière euh, Mary Teuw Niane waaw mm-hmm, ah, voilà souvent comme ni ko kiy waxee rek cest à jigéen ñi tamit dañu bëgg di attardé wu ci yooyu quoi mm-hmm. moo tax euh, yaakaar naa gouvernement bi bàyyi na ci xel <laughs> te boo xoolee post bi ñu ko fal mérito na ko si scolaire bi depuis ma koy xool ci suba ci oh. journal yi mm-hmm. vraiment mérito na ko bon y' a pas beaucoup de choses à dire sur ça. Mm-hmm. Euh, Birahim si conseil interministériel bi ñu doon def très récemment.